di sant Serigne Touba di sant borom bi ci li mu kàttanal ba nga xam ni mën nañu ñëw fii ci Touba bokkandoo ak jullit yëpp ak taalibe yëpp màggal yi nga xam ne moom la ñu fi màggal si di ñaan suñu borom ni ko borom màggal gi waxewoon euh, liggéey bu bi mu liggéey Euh, nekk ay xéewal pour mbindeef yëpp mbindeef yi romb na nit ñi rek toute la créature la ñaanal tawféex la ñaanal ay xéewal loolu nag yal na yàlla wàcce ko ci senegal yëpp ci ñu dëkkee ci biir réew mi ak ñu nekk ci diaspora bi wàcce ko ci adduna bi yëpp coono yi yëg nañu ko xam nañu ko soññe yi ak yàkkamti gi nit ñi yàkkamti ma yëkkati sama kàddu ci situation réew mi yëg naa ko wante dañu nekk ci liggéey boo xam ni incha allah Sénégal li koy jëmale kanam du wax rek du critiquer rek du wax na lii baax na lii baaxul puisque li baaxul moom ñëpp ko yëgandoo mais liggéey ci loo xam ni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 des na la màggal danañ la jiital